salaatu wa salaam ala amin bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ñëpp ci turu Cheikh Sidi Mokhtar ci turu Serigne Moustapha bi ñu ma booleel ak Serigne Abdoul Aziz ak Malick Dieng ak Khadim Diop ak ñi ñu àndal ñëpp pour mu dëgg bi dafay dal ñu jiital ci nuyoo boobu Serigne Cheikh ma nga xam ne moo jiitu ci njabootu Serigne Abdoul Khadim te jiite di taal jiite di nuyu bu baax itam Serigne Bassirou ak Serigne Abdoul Fatah di teg nuyoo Serigne bi jëm jëmee ko ci bokk yi yëpp di ko jaaral ci ñoom di nuyu bu baax président euh, ak euh, Mor de la république ñoom la fi yabal di leen jot di leen yóbbante nuyoo sëriñ bi ci président de la république bu baax itam maître Madické Niang ak Aliou Badara Cissé di leen jot ci gàttal daal ñoo ngi nuyu mboolem ñu teew koo xam ne bis bi moo tax nga jóg sëriñ bi nag woo nañu ci suba ñu fekk ko fa mu nekk mu am ñu bari ñu wax loo xam ne waxoon na ne bu ñu teewee ci baal bi nañ ko wax waxoon na ne nañu seere ci kanam mbooloo bi lépp ak cantam ak i ngërëmam ci jabootu sëriñ Abdou Khadre muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw seere ko sëriñ Cheikh mi nga xam ne moo nekk ci bopp bi seere ko mbooloo bi lépp ndax nee li wolof jaay jox yàpp yëpp su ma la des aw di am yoon te sëriñ Abdou Khadre ni nga xam ne noonu la ñu mel di ko doxee muy bi du sonn tey du sonn fu ëllëg te xamal na ma ne itam loola dara wóolu ko dul sëriñ Abdou Khadre mi nga xam ne moo leen yoroon yar leen jàngal leen bokk leen ba ñu àgg fii ñu àgg tey ndax Serigne Abdou Khadre damay wax ni jumaa ji ku ko jiite ñaar ci at ak nangam benn diggante yi ko manqué ma nga la fekk baaxatal mu xeram ngay def say borote kenn ku na ne kooku bu ñu waxee ni imaam kon Serigne Cheikh Serigne bi nee na mi ngi ay cantam ci yow ci njabootu Serigne Abdou Khadre yëpp ci tamit bi yëpp ñu ngi ko seere booloo bi mu toll lépp waaye ci biir kat boobu itam ay mag yoo xam ne dafa jël liggéey bi nga xam ne Serigne Touba daf ko dégg am lu mu ci ñu ñu di ko say muy Serigne Fallou bi nga xam ne moom lay jiitaloo gisu bi di Serigne Bassirou bi nga xam ne moom la jox kàddu Serigne bi nee na ñoom ñoo ñu ngi seere ay tantam ci ñoom ndax li mu leen dégg kenn ku ci ñoom yaa ngi koy dox bu dégg subaa ngoon la la ci war a tam yaa ngi koy def Serigne Abdou Khadre nag nit la woon koo xam ne bu ñu ko taxawalee bis bu mel nii lii wër ta bett ndax mbirum yàlla mooy li nga xam ne day jëm kanam waxtu bu ne waaye du dellu gannaaw mukk booy jox sa bopp joxal sa bopp yàlla booy topp toppal yàlla booy wut ngërëm wutal ngërëmul yàlla ku topp ci jotaay bi tey ba fi korom dugal léegi di ko gëm ak ñaar fukki at wala bu ëpp ko jotaay bu mel nii tey ku loolu nii amee quantité bi ah, kenn kon kenn ku nekk war naa xam ne booy sonn na nga sonnal suñu borom booy wut ngërëm na nga wut ngërëmul suñu borom booy wax lu dul dem na nga wekk ci yàlla ndax yàlla mooy borom lépp mooy jox ku ko soob mooy xañ ku ko soob ñuy dénk nit ñi nag ñu góorgóorlu bu baax ci jàmm yàlla ndax sëriñ bi waxoon na ne nañu wax ne bëgg nañu sàmmal ko or may dëkk bi ndax dëkk bi sëriñ Tuubaa da koo santoon ci kilifteef sant ko ci ndigal sant ko ci jiitu nit ñi topp ci gannaawam waaye waxtu wu ne guddee bëccëg am na ko dañoo xam dañuy toll sax ci jàpp nekk ci rajo di wax ak ñeneen ak ñeneen sëriñ bi noonu nee na loolu mi ñaan ñëpp ku génn ci te ñu dellu ca la nga xam ne moo la xawoon démb ak bët ki démb mu ne benn baat la am bu sëriñ bi jiitu ca bu ne nangam ñëpp ne nangam ndax ku xam ci fi mu jëm te yow xamoo fa nga jëm bu la nee kaay mu yóbbu la fi nga jëm war na ko man te Sëriñ Tuubaa xam na fi mu jëm te ci ñoom xamul fi mu jëm kon Sëriñ Tuubaa lu mu bëgg yóbbu xam fa mu jëm te fa mu jëm di fa gën te bëgg du faa yóbbu kon la ñu ne wax war kon sëriñ bi nga ne góorgóorlu bu baax jaamu yàlla booloo nekk benn di jàppandoo di yëkkatandoo di dindandoo di dimbalante ndax gannaaw di def eh, eh, état di boole seen nga xam ne yàlla dañu koo digaloon démb doon baax te itam saay-saay yi seen pexe du joy du joy mukk te waxtu bu nekk ñi koy fexe ndax Serigne Touba ña ko doon fexeel démb yoon sëñ Tuubaa fu mas a sanc ba foofa nooy mu jàll ndax yàlla suñu borom moo ko xamaloon fu am noonu nekkul deesu ko yokk am na nit ñoo xam ne noonu moo leen di yëge sëñ Tuubaa du dakk ay noonu bu mukk waaye fexem noonu saa bu fexee ba dee di jooy nag yàlla du ko jooy inna am na laa laa di kenn xaat bii fexem noonu du jooy bu mukk saa bu defee ne jooy na rek yàlla dana ko mokk kon ñu raxas xol yi bu baax te àndandoo nekk benn yaakaar sëñ Tuubaa te wér ci moom te xam ne mooy borom lépp ndax koo xam ne ba ngay tàmbali xasal bi da nga doon muslu seytaane nga daan seytaane nga dem ba mu yàgg nga am yàlla nag ma may nangam yàlla nag ma may nangam nga dem ba yàlla nangu la lool nga kon yàlla na sëñ Tuubaa defal xol bu sell defal ñu xol bu laaj te boole ñu jubale ñu ba ñu mën a suñu am suñu réew ñu ko bëgg te yàlla def ci jàmm ndax jullit dafay raxas xolam ba mu set la mu yéene boppam mu yéene koy borom yawma laa yanfa'u maalun wala banuun illaa man ata Allaaha bi qalbin saliim boomul qalbu saliim daanaka dootul dara kon góorgóorlu bu baax ci jaamu yàlla góorgóorlu ci liggéey góorgóorlu ci boole suñu bopp nekk benn te dëggal nag jël suñu tànk teg ko ci siraatal mustaqiim ndax koo mën a yaakaar adduna bis day ñëw ñu gas ba mu xóot waate ko suul lam amoon lépp ñu seddoo ko boo amoon bu ñuy kër benn kër nga ci fanaan sa benn benn

ak njàmbaar ak leneen suñu Abdou Khadir nii nee na xamul jàmbaar ku yàlla jublu la a nag yàlla na yàlla jublu lii gërëm ñëpp sant a tey ñaan nag mbooloo mi teew tey bisub ñaan la sëñ Bassirou Bousso wax na ko léegi ñu ñaanal Cheikh a Moukhtar yàlla yàggal ko fi yàlla may ko wér yàlla kattanal ko ndax li mu yéene Sénégal mu mu mën koo jëf barki ne bi ñu def dem màkk avec sëñ Abdou Lahad Jaxate bii ak sëñ Moustapha Kam yi daf ñoo wax ni su ngeen demee Médine na te ay mënu woon bañ a si dund su ngeen demee Muna na ngeen ko def su ngeen demee Màkka na ngeen ko def su ngeen demee Arafat na ngeen ko def su ngeen demee Muzdalifa na ngeen ko def te noonu lañ ko defee tam te ñaan ya am nañ ci yaakaar bu baax ndax su wër woon a am moom du ko déglu ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah